ministère bi ñu dénk mbirum dem ak dikk bi ak jumtukaay yu mu àndal ànd si ak union européenne ñoo taxawal programme bu yees ñu jublu si indi si yeneen xeetu doxalin ci lépp lu jëm si mbirum transport fii si Sénégal programme bi le teg ay jéego yu am solo si lépp lu jëm si waxtaanee mbirum surcharge bi ñàkk kaaraange si yoon yi yenn jëfin yu ñaaw yi ak lépp lu jëm si mbirum transport ak coppite yu ñu seetlu si jaww ji ñu jublu si tamit lépp lu jëm si naka lañuy dugalee jigéen ñi si lépp luy doxal transport fii si Sénégal li ni mel itam dana war a mën a indi xëy si ndaw ñi Pagotrans jóg nag ngir jàppale nguur gi si lépp lu jëm si mbirum transport fii ci Sénégal bëgg itam ñu gën a boole jigéen ñi si mbir bi la aji Kodou Thiam laa tudd bi ma amee bac scientifique dañ ma orienté ISEP Diamniadio via campus Sène ISEP moo ñu placer fichier au garage au garage mu nekk garage moderne depuis suñu sortie ñu ngi fii di def euh, stage bi fi ñëwee ba tey moom rëccu wuñ ko parce que ñu ngi forme ci domaine yëpp defuñu mécanique kese parce que boo ñëwee mécanique mécanique te mënoo manager boo tijjee sa garage aussi doo avancer et au garage aidé nañu si loolu ne bu ñu on donne tous les secrets pour ñu mën a demal suñu bopp. enquête yu bëri ñi ngi wane ni ba léegi jigéen ñi amuñu gëdd bi war si mbirum transport. am na ay entreprise yu teg ay jéego yu am solo tàbb jigéen ñi def leen ay chef de division ay conseillère technique ay chef de bureau wala ay ingénieur yu doxal projet yi ay technicienne wala ñuy dawal oto yi ak ñi nekk ci biir bus yi def naa dix ans dix ans ci taxi 2017 ci laa ñëw Dakar Dem Dikk bi ma ñëwee Dakar Dem Dikk def fa trois ans après ci laa jóge foofu daal di ñëw Sénégal Dem Dikk lii dañ ko bëgg depuis à bas âge mu nekk ci ñun ñu xame ñu ko donc dañ koy def te mu nekk lu ñu neex trop aussi. non métier bi pour pour même prouver que ne métier bi du du du liggéeyu góor jigéen mën na ko def góor mën na ko def l' essentiel mooy nga ànd seex bëgg-bëgg ànd seex euh, pas euh, courage parce que du métier loolu loolu daal moom mos gën a dugal pour ne wan na ne lii du métier góor kese métier jigéen mën na si dugg waaw métier bu noble la macha allah après facilement ngay comprendre. di circuit di dem di dem di dem ba am tuuti expérience. man de bëgg na centre de formation pour jigéen ñi ci métier euh, par exemple mécanique bi électricité ak carrosserie bi. waaw oto yi bu mu wàccee en 2005 ñoo xamante ak benn receveur bu tudd Babacar Yande mu daan ñëw ba ci buntu école bi di yeb élèves yi léegi élèves dañ am habitude bu ñu yéegee dañuy burle léegi mu daan ñu jox badge ñuy contrôler oto bi kon noonu lañ xamante finalement mu ñu dugal ci guichet bi. ñuy commencé di jaay ticket ba nekk receveur ba tey jii ñu nekk chauffeur métier chauffeur passion ak amour. ay jigéen lañ dañuy jug di daan suñu doole te am na koo xamante ni boo tolloo liggéey rek moo la war jigéen baax na góor baax na jigéen baax na gëm sa bopp daal liggéey ci la bopp. mu doon mbir bu am solo jógee si campagne yi nga xamante ne jot nañ ko doxal fii si Sénégal ngir ñaax ñi nga xamante ne ñoo nekk si nguur gi ñi nekk si secteur privé ak dëkk yi jàppale Sénégal si lépp lu jëm si mbirum koomam ñoo jàpp si liggéey bile mu doon tàmbali bu njëkk ngir gën a soppi li nga xamante ne moo di gis-gis bi si lépp lu jëm si mbirum transport ak naka la ñuy fexe ba jigéen ñi nga xamante ne kenn demul ñu des ñu gën leen mën a boole si liggéey bile ministère bi ñu dénk lépp lu jëm si mbirum dem dikk bi fas yéene tàmbali yeneen i activité gën a mën a bàyyi xel si di jigéen ñi mën a indi si mbirum transport ñoom ak ñi nga xamante ne dañoo laaw xayma yu bëre si mbirum koom wane na ni boole ñëpp si lépp luy doxal yenn secteurs yi nga xamante ne ñu si bëre ñoo si yëngu dana gën a dëgëral koomu réew te dana indi jàppandal si secteur yu mel ni transport li jigéen ñi mën a indi si mbir bile am na solo lool ndax ba léegi cër biñ leen war a jox jotaguñu si suñ leen gën a boole si lépp lu jiblu si mbirum transport jàpp nañu ni Sénégal dina teg ay jéego yu am solo autorités yi di leen ñaan ñu yaatal affaire bi oyofal ko ba gars yi ñemeñ ndax ñu bëri bëgg na ñëw mais xamuñu affaire yi day diis ci ñoom donc nañu oyofal affaire yi euh, ba sama mbokk jigéen yi yëpp ñëw. si entreprise yi ñu jàppale jigéen di leen jeunes formation yi ñu gën see dooleel jigéen ñi pour jigéen ñi gën a am formation si côté technique bi. Pagotrans ngir yeesal doxalin bi si secteur transport fii si Sénégal te ñëpp mën see bokk.